ñun ku yuuxu pour Médina rek ñu yuuxul la ba pare dama bëggoon tamit loolu gars yi xam ko faruma fenn bokkuma benn camp dama bëgg mu leer ko léegi dama am soxna kilifa laa non kilifa laa barki Seydina Mohamed dama am soxna kilifa te ragaluma fi ma jëm ndax duma tooñ mais faruma fenn je suis pas un politicien na gars yi di bañ a confondre affaire yi euh, Bamba Fall bu ma defalee lu baax damay jël sama téléphone bi snap ko ne ko monsieur le maire merci yaa fi ne defal nga ma lu baax Cheikh Ba bu ma defalee lu baax damay jël sama téléphone bi ne ko monsieur le Cheikh Ba messi de la Médina yaa fi ne kenn du yow Youssou Diall bu ma defalee bu baax damay jël sama kii bi maanaam daanaka man El bu Médina la El bu Sénégal laa faruma fenn mais gars yi day am ñu lay utloo ay camp ndax di nga nekk relation ak nit bu yàgg ñu bëgg ko yàq non non man faruma fenn par parloowuma kiiwuma maanaam dama bëgg ñu xam ni man waykat la tey Bamba Fall dama koy way Cheikh Ba dama koy way Seydou Gueye dama koy way Pape Abdoulaye Seck dama koy way man waykat laa ñoom ñëpp laay way parce que loolu yàlla moom ma séddee noonu waruma far fenn maanaam dama bëgg muy leer rek parce que xam nga àdduna neexul jamono neexul ñu bari dañ lay utal ay camp te ay ndaw lañu dañu nekk ci yoon te bëgguñu lu ñu yàqal suñu yoon loolu képp moo tax ma kontaan ci question bi ma posé daf maa neex parce que ñu bari dañ lay utal ay noonu waa féete fenn te yàlla te yàlla xam na ni yàlla xam na ni maanaam di nga toll fenn moment boo xam ne xelu xale dina la jàpp mais pare di nga di nga toog nag nga gimmiliku xam ni lii mooy àdduna dama dem nag gimmiliku xam ni lii mooy àdduna ma xam ni politique ma El Hadj Keita politique gul El Hadj Keita c'est politicien El Hadj Keita chanteur de la Médina damay woy Cheikh Ba damay woy Bamba Fall damay woy Seydou Gueye damay woy Pape Abdoulaye sek damay woy Cheikh sek damay woy Pathé Ba damay woy Youssou Dial damay woy MTV Médina rang mooy MTV <laughs>